yu nangam naa ko donc médias yi aussi dañ ci am responsabilité parce que les médias là ils ne sont là que pour vendre ils ne sont là que pour capter l'attention après nag dañu dem ba topp société bi si bëgg-bëggam daal au lieu que média bi déterminer fil conducteur bi mu war a joxe au lieu que média bi orienté le débat sur loo xamante ni luy amal njëriñ mais tey médias yi dañu nekk à la quête de buzz. après n'importe qui peut avoir un média n'importe qui peut avoir une chaîne loolu aussi tamit il faut que état bi organiser ko. kon dañu ñëwaat ci responsabilité. ah oui mooy responsabilité c'est-à-dire n'importe qui ne peut pas prendre la responsabilité de diffuser de l'information comme ça alors que amoo sax prérequis loolu nag euh, dafa bokk ci ay feebaru Sénégal de. oui fii tout ñëpp ay journaliste lañ. mooy li waaj naan fii mooy Sénégal. <laughs> waaw am na am na waaj ko wéyoon ñu ñëwaat euh, Cheikh Omar ci par rapport ak euh, li nga xam ne Seneweb euh, génnee na ko ci wàllum xibaar moom mu jàpp ne mbirum xaalis moo leen jotale mais est-ce que jàpp na que enquête bu ñu ko creuser aussi dina am peut-être que loolu c'est bëgg a nekk enquêteur. kon kay bàyyil enquête bi eggale man man man xam naa ci lu bari mais du ko wax parce que je suis pas habilité di ko wax. ñi nga xam ne ñu ngi def enquête dinañ ko def c'est tout ñu dem ba jàpp ki rey. te mu jëm làqatu. te fi mu doon dem mbooloo lu mot des millions de personnes ñoo fa dem mu mun fa jaar moom ñooñu dem ba jàpp ko du benn nit rek lañ jàpp. a deux autres xawma des na keneen information officielle bee génnagul jàppaat nañ une quatrième. donc ce qui mène les enquêtes. ils ont l'expérience, ils ont l'expertise de faire leur travail. Laissons-leur quand même faire leur travail. Après, nag allez si ay hypothèse est-ce que lii est-ce que là est-ce que lële bon laissons-le les enquêteurs faire leur travail c'est tout. ok ñu confiance ci ñoom dinañu ko dinañu ko motal euh, mais est-ce que foog ne tey Sénégal war nañu ko <laughs> ndëppal parce que ñu bëri dañ jàpp ne réew mi dañ ko war a sang defaraat ko parce que am na lu fi dugg loo xam ne bokkul ci. comme peut-être ay rab ak seytaane ak seytaane bi si ñun la rek. <laughs> ñun société yi. waaw <laughs> seytaane si ñun la rek c'est moo tax moi je parle de refondation de de notre société aussi simple parce que euh, def ba pare ñu naan seytaane seytaane mooy la. dañuy gis ne boo bëggee soo bëggee ah, wax mu jàmm ma ne soo bëggee loo amut. bëgg loo mënut dina la dugal ci lu ne. soo maanduwul doyluwoo dina la def loo lu ne soo maanduwul doyluwoo mais affaire góor jigéen ñu bëri la moo leen ci dugal alal moo leen ciy dugal. parce que dem nga ñu jox la benn train de vie boo amul woon wala dara après nga dem dugg ci circuit boobu c'est aussi simple mooy li ma la wax ban seytaane bi ñu la ne sëñ bi. ñun nit ñi. waaw parce que ñun ñoo amul valeur boobu. parce que société bi ñu nekk ku amul gisuñu la. mais pourtant ñun dañu am nañ ay valeur de ay jom kersa oh, ah, waxuma ni amuñu valeur. ña doon am valeur ba tey ñu ngay am valeur. xam nga baatu jom ci lu mu jóge xam nga ko. mu ngi jóge ci jomb. jomb waaw maanaam nit ki mu am lu muy jomb. ki am lu muy jomb kooku moo am jom maanaam tey yow jomb nga sàcc fi caméra wala micro. parce que boo ko sàccee. di nga rus ñu ne diw moo ko def diw mooy doomu diw boo gisee nit ki di am lu muy bañal boppam am lu muy sàmm mooy sàmm ngorom googu nga xam ne yow boo ñàkkee du tax nga ñàkk sa ngor boo ñàkkee du tax nga ñàkk yow li nga doon ñàkk sa ngëm-ngëm mais xam nga tey woykat boobu la mu doon woy euh, Ndeye Mari Ndiaga alal bu mu la jaral sa ngor yàbbi di ko lekkat par exemple wax boobu dafa rëy nous avons nos valeurs mais est-ce que ñun ñu ngi koy dund. gars yi xaalis la ñuy léegi. am na ñuy jaam xaalis. mais tey mooy société bi nga xam ne foofu lañ toll tey. c'est le matériel qui prime. c'est l'avoir qui prime sur l'être c'est l'avoir qui prime sur l'être maintenant il faut revenir si defar doomu aadama yi. nga dina yomb jaxasoo beeg technologie bi à côté. waaw ah, mu jóg jamono rek ah, mu jóg jamono parents yi aussi. waaw mais xam nga tey man. mooy li parents plus maintenant y ci kër mais mais xam nga ñëw si si si saa waa ci dugg sa kii après. waaw mais loolu responsabilité société la parce que. loolu la ñu yàlla wax waajur bu nekk sàmm nga ci sa njaboot. mais ensuite nit ki am na fooy toll am nga responsabilité ci yar sa bopp. am nga responsabilité yar sa bopp. ni nga mënee dugg ci internet pour seetaan ban série moo xew mën ngaa dugg ci internet pour jàng alxuraan. mën ngaa dugg ci internet jàng sa diine. mën ngaa dugg ci internet yokk sa xam-xam. mais ñun Sénégal internet boo ci duggee rek topp kaa quoi. diw saaga na diw maam Ndiaye savon kee xas na ko xaw ma lu mu tudd après Mbathio Ndiaye ñun ci loolu la ñuy fonctionner quoi est-ce que nous on doit fonctionner sur moi je suis choqué quand guddi nit doo def dara quoi toog di seetaan ay nit ñuy nekk fa di wax. ala na foore di live quoi. waaw mais bon pourtant y a des milliers de personnes et des millions mais déggoo li ma la wax. kii saaga wala di wax lu ñaaw lañ gën a xool moom lañu gën a bàyyi xel. te borom xam-xam. bu ñu demee nag ba ci réew ñi nga xam ne xamuñu ñoom ñooy génn ñoom la ñuy topp ñoom la ñuy déglu ça veut dire que pose problème. ok mais est-ce que démission pareil aussi parce que maintenant nga dox ci mbedd mi ay une heure du matin deux heures ci croise des jeunes yoo xam ne am yenn âge bi di toog di ñaan et cetera est-ce que loolu aussi état warul ci mën a taxawaat. oui mais état am na responsabilité les parents aussi la responsabilité on peut tout remettre sur l'état. état am na wàllam. état ku deful lu dul yor état jël la moo lay yar mais balaa état di jot ci yow say waajur ñoo lay yar ci kër gi. mais gars yi ne dépense bi moo xaw a cher lu lekk foog ñu lijjanti ko duñ tal xale yi. ah waaw baax na bu fekkee nag lijjanti woo sa njaboot. nga am njaboot boo xamante ni njaboot mi nekk ci mbedd mi la rek après lii la lay jural. ok ñi naan peine de mort dañ ko war a delloosiwaat yow. waaw c'est un c'est un c'est un c'est un vieux débat qui revient toujours. parce que euh, ñun d'abord euh, dañu gëm ni que bakkan dafa fort. waay te ay jullit lañ ñun lu lislaam wax mooy ku faat ñu faat la. mu buñ ko defoon léegi ñaar ñett. Hmm. léegi mbir yi wàññeeku. waaye nag comme dañu nekk ci république laïque droit bi ñu am yëpp la plupart c'est d'inspiration française après euh, les droits de l'hommiste vont te dire euh, nit ak lu mu mën a def am na ay droits et cetera mais quelqu'un qui qui ôte la vie de de quelqu'un d'autre est-ce que amatina droit ça c'est un vrai débat boo xamante ni war nañ dem en profondeur ensuite est-ce que indi peine de mort dina tax mu nekk solution parce que tey war a criminaliser la drogue indi nañu ay affaire mais tey euh, est-ce que indi ko tax na mu doon saafara saafara si kay du y a pas d'effet sans cause il faut ñu dem à la source à la source c'est d'abord sur l'éducation à la source c'est d'abord ci nan la ñuy defaree nit ñi ñun dañoo tabax dëkk defar ay pont defar ay infrastructure mais dañoo fàtte defar ay nit il faut ñu jublu léegi ci defar nit ñi boobu mooy il faut ñu defar ay nit. defar nit ñi nag mooy ñu ñu ñu yar nit ñi defar nit ñi mooy ñu ñu ñu ñu tàggat leen defar nit ñi mooy ñu delloo leen ci li ñu nekk li nga doon wax sax dafa am solo loolu nga doon wax ndëpp xam nga seen chef da wax nañu sang réew mi balaa réew mi di sang boppam. Mhm. mais pour aller même plus loin encore il faudra véritablement. Justement. repenser notre société. Oui. il faudra nécessairement ñu defarwaat parce que tey. boo demee ngénte baadoo la lu mu amul woon yëpp ci la koy sotti pour wane boppam parce qu'il a un besoin existentiel parce que dañu nekk ci société du paraître di nga def sax ba def loo mënul mm-hmm. parce que nit ñi tey ci loolu la ñuy nattee doomu aadama nattatuñu nit ci ay valeur am nattatuñu nit ci ci ci jomam wala ci ngoram mais dañ koy natt tey ci lan la am ak lu mu amul ban oto la yore wala nàngam parfois nga génn ñu ne la yow yaa ngi génn télé téléphone bii nga yore ndabar bii <laughs> doo tax yoroo 15 wala ngay wut sax loo xam ne yow attanoo ko wala mënoo ko. wala ngay dugg car rapide yi ñu ne la pourquoi ngay dugg lii. waaw moo tax daal il faut il daal ñu ñu defarwaat de la mort bi may ak les droits de l'homme quand même dina nekk lu yomb. oui mais aussi ils ont dans l'autre côté. waaw mais affaire du question société bi dafa am évolution et puis loi boo gis c'est par rapport à un par rapport ak ay problématiques yoo xam ne war na ko war na ko wuyu parce que booy def droit dañ lay wax ni euh, loi yëpp dafa am ci yu muy jógee société bu nekk en mutation nag moom mooy xool yan loi moo dëppoo ak organisation yan loi moo dëppoo ak jamono. ok voilà ok leneen lit mooy dañu jàpp na suñu frontières yi comme ay rido ay nit dañu bàyyi ko fu ne ñëw dugg du am verification du am dara est loolu aussi